la constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de juróom-ñaari at donc le mandat de Macky Sall 2012 2019 constitution du Sénégal du ko considérer non non non du ko considérer tu parles français tu le comprends je parle français je le comprends la constitution du Sénégal dit que la constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à deux mandats de cinq ans Macky Sall mandat de cinq ans donc Macky Sall ces deux mandats de cinq ans selon la constitution du Sénégal c'est le mandat 2019 2024 2024 2029 voici les deux mandats que Macky Sall peut briguer selon la constitution du Sénégal te dinaa la jox benn tey dinaa la wax benn confidence bu ñuy xeex Ablaye Wade ci troisième mandat bi xam nga ñun nag euh, xam nga ñun politiciens yi des fois dafa am ñu yàlla bindee man te ñun on savait que Abdoulaye Wade avait droit à un troisième mandat